الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسانو فيدو بي كوشي تي بي جسانو فيدو بي مبوكي سرم بنا مغين دوكي البوكي يب يالا مينو ماي يالا مينو ماي چكترانغام چكترانغام چنباخم چنباخم چنگنيلم چنگنيلم ñu or wéri koor wi ba mu jeex suñu kemb kattan suñu kem kattan ba li mu laaj yépp góorgóorlu nañ ci góorgóorlu nañu ci ku nekk def na nam ko mënee ku nekk defee na ko ca nam ko mënee woor nañ bëccëg yi woor nañ bëccëg yi julli nañ guddi yi joxe nañ suñuy alal saraxe dundale nañ ci yoon yi yàlla da ngeen léegi li imam wax ci xutba gi càkkute yàlla ci weer wii ne loolu mooy càkkute yàlla ci weer wii alhamdulilah yàlla may nañu te alhamdulilah yàlla may nañu ci yombalan ci yombalan ba ñu mën a taxawee loolu yëpp ba ñu mën a taxawee loolu yëpp ndax am nañu ko yàlla sant ndax am nañu ko yàlla sant waaye nanguwuñu ko waaye nanguwuñu ko defuñ ko it buñ gisee ku koy def sax ñu di ko reetaan ndax réer ndax ñàkk a xam. waaye lu yàlla santaane. waaye lu yàlla santaane. jaamu yàlla nekk ci di ci góorgóorlu. jaamu yàlla nekk ci di ci góorgóorlu. kooka def na la ko war a def. kooka def na la mu war a def. ku foog ne moom ngay reetaan. ku foog ne moom ngay reetaan. sa bopp ngay reetaan. sa bopp ngay reetaan. ku foog ne moom ngay ñaawal. ku ngay ñaawal. sa bopp ngay ñaawal. ndax lépp ci yow rek la nekk ci yow mi koy def rek la nekk. ndax lépp ci def rek la nekk. ñii duñ def. def. ne yàlla sant na leen. mooy ne yàlla sant na leen. ñu wax ne. ñu wax ne. dégg nañ. dégg nañ. te topp nañ ñu sant. sant. bokk ci dénkaane yooyu ñu sant. bokk nañ ci dénkaane yooyu ñu ñu sant. taxawee weeri koor. taxawee weeri koor. mooy. jàpp jàpp. jàpp. li ko dalee gannaaw ca ca waxtu ko dalee. ca waxtu ci waxtu noddu. ci guddi. ci guddi. fajar ba ba ñuy jullee timis ba ñuy jullee timis lépp nga jàpp ko lépp jàpp ko jàpp nag ci lépp loo xam ne dafa yàq sa koor jàpp nag ci lépp loo xam ne dafa yàq sa koor bu ko defee bu buñ defee loolu bon taxawee nañ weer wi niñ ko war a taxawee ñun ñëpp góorgóorlu lañ ci loolu góor ak jigéen mag ak ndaw gis nañ jàkka ji ni mu dundee jotaayu xam-xam yi ni mu dundee. gis nañ jotaayu xam-xam yi ni mu dundee. loolu yëpp nit ñi def nañ ko. loolu yëpp nit ñi def nañu ko. ngir màggal weeru koor wi. ngir màggal weeri koor wi. ndax ku màggal weeru koor. ndax ku màggal weeri koor. yaa ngi def li nga xam ne moom la la yàlla sant. yaa ngi def li nga xam ne moom la la yàlla sant. bu ko defee yàlla itam dana la màggal. bu ko defee yàlla itam dana la màggal yow jàmm bi. dana la màggal fii ci àddina. dana la màggal fii ci àddina. ëllëg ci àllaaxira. ëllëg ci àllaaxira it dana la yàlla dana la fa màggal dana la def teranga yoo xam ne dana la defal teranga yoo xam ne nee na xel mënu koo xalaat yonent nee na xel mën koo xalaat yal na ñu ko yàlla defal yaara bi nangul ñu suñu koor nit ki lii rek la xam yàlla sant ko mu def ko Sénégal yëpp góorgóorlu nañ ci koor gi ku nekk nag am nga noo gisee majorité bi fi ànd yëpp. waaye majorité bi fi ñu ànd yëpp. loolu ku ne ci xam na ne moo gën a jaadu ci xel. te loolu itam mooy li nga xam ne. ci lañ mën a jaar. pour tabax suñu réew. ci bennoo. ci bennoo. ba benn le suñu doole. ba benn la suñu xam xam-xam. benn le suñu xam-xam. men mën-mën. ba mën a tabax réew mi ci ni nga xam ne loolu lañ bëggee mu kawee ko fi ñu bëgg a àgg ci développement yépp boole suñu doolee moo ñu koy may boole suñ doole moo ñu koy àggale waaye gis sa gis-gisi bopp waaye di gis sa gis-gisi bopp foog ne foog ne doy na foog ne doy na kenn waxut ne doyut kenn waxut ne doyut de waaye yàlla daf ñoo wax ne waaye yàlla daf ñoo wax ne ànd leen dajale seen doole ànd leen dajale seen doole yàlla may leen yàlla may leen ko. te patriotisme laaj na. te patriotisme laaj na. ñu dajale suñu doole. ñu dajale suñu doole. patriotisme laaj na. patriotisme laaj na. ñu déggoo. patriotisme laaj na. patriotisme laaj na. ñu jegewante ñun ñëpp. ñu jegewante ñun ñëpp. patriotisme laaj na. patriotisme laaj na. ñu nekk ay mbokk. ñu nekk di ay mbokk. ñu am benn bëgg. ñu am benn bëgg-bëgg. gannaaw topp yàlla. gannaaw topp yàlla. lii màggal suñu réew. lii suñu réew. lii yëkkati suñu réew. lii suñu réew. lii dolli suñu réew. réew. mboolem dolleekuwaay yi. ci mbooleem dolleekuwaay yi. ci xam-xam. ci xam-xam. ci économique. ci yaru. ci yaru. ci mbaax. ci ci kawe. ci kawe. loolu yëpp mën nañ koo am mën nañ koo xam suñu xamee suñu xamee bu baax a baax bu baax a baax lan moo ñu war suñu diggante ak suñu réew lan moo ñu war ci suñu diggante suñu réew suñu réew ñoo ko mën a tabaxal suñu bopp dimbalante ak suñu autorité yi ñu ñuy wan yoon ñu ñuy wan yoon ñuy topp ci yoon wa yoon boo xam ne mu nekk nag di yoon woo xam ne tabax rek moo ciy bàyyeekoo. tabax rek moo ciy bàyyeekoo. dolli rek moo ciy bàyyeekoo. dolleeku rek moo ciy bàyyeekoo. peuple bu dëgër moo ciy bàyyeekoo. peuple bu dëgër ciy bàyyeekoo. boo xam yoon woo xam ne. peuple boo xam ne. peuple boo xam ne. xam na ne njëriñam. xam na ne njëriñam. mooy du ñu wanante gannaaw. mooy du ñu ñëpp dañuy jàkkaarloo. ñun ñëpp ñu joxante loxo. tàggale diggante nit ak nit. diine ñëwut pour tàggale diggante nit ak nit. waaye diine dafa ñëw pour dajale nit ñi. diine dafa ñëw pour dimbalante. diine dafa ñëw pour dimbalante. kon dégg diine. baax na lool. waaye dégg itam si société lim laaj nga defal ko ko. loolu itam. dàqawut ak diine. daanaka loolu sax mooy diine. ndax wax nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne bëgg sa réew ci gëm yàlla la gëm yàlla googu nag dafa war a feeñ fu nekk fi mu njëkk a feeñee mooy naka la ñuy nekkee benn naka la ñuy amee kaddu naka la ñuy mën a tabaxee suñu réew bu ñu ko jël rek en ko gouvernement bi waaye ñun ñëpp nañ leen am itte bokk ci jéem a liggéey jéem a liggéey jéem a taxawal suñu bopp jéem taxawal suñu bopp bañ a gis ne rek fi leeg demul ci biti am dara bañ gis ne rek fi demul ci biti tukki duñu xam dara te mën nañoo xam dara ci fii ñu dëkk ñi amee foofu ci seeni suuf rek lañ ko amee ci seen góorgóorlu rek lañ ko xamee seen taxawu seen bopp ci seen taxawu seen bopp

ndax loolu nga jiite xale dana juddu léegi xale dana juddu léegi war na fexe war na fee fekk lu ko dundal te yéen autorité yooyu ci yéen lay bàyyee ko taxawu population bi ndax ñoom i tamit ñu mën laa taxaw ñu mën a ànd ak yow ñu mën laa ñaanal ñu mën a am yaakaar Sénégal réew mu bëri ay xale lañ xale yu yeewu xale yu xam waaye nag xam-xam beeg yeewu tegi boo ko mënta contrôler ba mu génnee dara musiba rek lay andi mooy indi violence yi ngeen di dégg yépp ñàkk mën a contrôler nam demee loolu rek la jàngal lan mooy état ndax. sëriñ bi ne du leen jàngal lan mooy état ndax xamut ko. waaye nag yéen ñi ko xam itam. waaye yéen ñi war ngeen ñoo jàngal ngir ñu xam état. war ngeen ñoo jàngal ne état bennoo la. war ngeen ñoo jàngal ne état euh, gouvernement peuple la. peuple ak gouvernement. nañ leen fasante. li leen fasante. mooy dimbalante kenn ku nekk nekk ca la nga war a nekk liggéey te liggéey rek tax laa jóg ñu mën a développer suñu réew senegal barke bu nekk fi xam ngeen ndax nit ñu baax ñi fi feeñ boo demee ci àddina bi yépp di leen fa dégg nit ñi di leen topp di leen bëgg peuple bu génnee nit ñu mel noonu dëgg-dëgg xam ngeen ne peuple bu baax la peuple bu kawe la bon bu amee nit ñoo xam ne yàlla teg na ci ñoom responsabilité jiite ñooñu war nañoo xam bu baax itam ne peuple bu kawe lañ jiite bon lu kawe jéem koo dimbale mu gën a kawe ñu ne tam ñu gën a dimbale suñu bopp gëna mëna tabax suñu bop gëna mëna kawe ndax jamono yi xelaat yu bari idéologie yu bari ak gis-gis yu bëree bëri ak tasarona ci abdou nabi ñeen di koy gis di ko nangu ndax dañ ko xamul ne son ne seen lor rek la ñu ko xam itam tayaluñu di yee nit ñi di yee nit ñi di leen wattandikuloo di leen wattandikuloo pexe yu bon yooyu nga xam ne pexe yu bon yooyu nga xam ne du indil nit lu mooy tardeel ko rek lu dul delloo nit ka gannaaw rek gëm yàlla gëm yàlla mënta delloo nit gannaaw mënta delloo nit gannaaw xam ngeen gëm lu baax gëm baax nga xam ne ci ay waajur nga ko doonee mënta delloo leen gannaaw bu fekkee ne dëggu nga ca sax ca lañ ca war a saxee waaye bu fekkee nag lu ñëw yow këf la yóbbu la philosophie wax nañ lii philosophie wax nañ lii philosophie yi wax nañ lii scientifique yi wax nañ lii waxi nit rek la. waxi nit rek la. ay xalaati nit rek la. ay xalaati nit rek la. bokkut ak li nga xam ne nag yàlla mi ko moom moo ko tëralee noonu. bokkut ak li nga xam ne yàlla mi ko moom moo ko tëralee ni ko soob. ne defee leen ko noonu. ne defee leen ko noonu. ne defee leen ko noonu. foofu la sama yërmaande nekk ci yéen. foofu la sama yërmaande nekk ci yéen. foofu la sama ngërmaande nekk ci yéen. dinaa bàyyi loolu. nga ne dinaa bàyyi loolu. dem seeti lu benn scientifique wax. dem seeti lu benn scientifique wax. ne moom ngay topp. ne moom ngay topp. fàtte ne nit la comme rek. bul fàtte ne kooka nga topp nit la comme yow rek. borom xel rek la. xel rek la. génne na ci xelam na ci xelam. loo xam ne yàllaa ko may sax mu génne ko. xam ne yàllaa ko may sax mu génne ko. nañ delluwaat ci suñu bopp ñu xam suñu réew mi bëgg ko. sëriñ bi ne nañ leen delluwaat ci suñu bopp ñu xam suñu valeur réew mii te bëgg ko. te jéem koo yëkkati. te jéem koo yëkkati. te a dimbalante ci loolu. te jéem a dimbalante ci loolu. fasante koo bi. fasante koo bi amul benn njëriñ du ñu dolli dara li ñuy dolli dëgg-dëgg mooy jokkulante mooy óoluhante ñi ñu óolu nag dénk leen réew mi ñun nangu ne dañ leen a dénk rek ñu yewenal ñu rafetal jëm ci seen peuple ñun tamit peuple ñun nangu tam bu baax a baax ne lii ñu gis la yàlla def nangu nañu ko ñu jéem a góorgóorlu ci liggéey jéem a dimbalanteeg ñoom di leen ñaanal ndax ñu mën a tabax état dañoo bëgg am état état dëgg dëgg état moom lañ bëgg moom lañ bëgg a xam ñi ko tabax nag ay nit rek lañ. ay suite ak ay Suez ak yëpp ay nit rek ko tabax. ay suite ak ay Suez yëpp ay nit rek a ko tabax. ñu ngi ko tabaxee ci seen bopp. ñu ko tabaxee ci seen bopp nag. dañuy dañuy dañuy rootaani rek di dañuy tabax. waaye bu fekkee ne dañuy rootaani rek di indi ne dañoo bëgg a tabax. na ñoom la ñuy roy. na ñoom la ñuy roy. bokkuñu bokkuñu. ñun dañuy jóg pour tabax. ñun tabax nañ ba pare. ñoom tabax nañ ba pare. bon mënuñoo nekk ñoo xam ne lu ñu wax rek ñu def ko. dañoo war a seet ñun lan moo baax ci ñun. lan moo ñuy dolli. lan moo ñuy yëkkati. yal nañu ci yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale ñu am hittey tabax suñu réew yaara bi. ànd ak suñuy autorité. ne Sénégal bu nekk ko moom. ñu bokk ñun ñëpp yëg na Sénégal sénégalais bu nekk moo ko moom. yàllaa teg sa dox pour nga ko. yàllaa teg réew mi ci sa doq pour nga sàmm ko. sàmm ko nag commencé ci sa biir kër. sàmm réew mi nag mu ngi tàmbalee ci sa biir kër. yaag sa njaboot. sa njaboot. lan mooy suñu rôle ci lan mooy suñu rôle bu ñu war a liggéey ci réew mi. fekkee bàyyi nga. fekkee bàyyi nga. nga teg say doom ci yoon yoon woo xam ne yoon wu dëggu la du yooni roy yoon wu dëggu la famille bu nekk defar njabootam ci éducation de base bu rafetee noonu bu ko defee bu ëllëgee ñun ñëpp mën nañoo tasee ci jàmm waaye di roy rek di indi rek di sant nit waaye di roy rek di indi rek di sant nit ñi loolu tardé suñu réew rekk la. te te du ñun. te du ñun. ñun ñun lañ. ñun ay julit lañ. moo gën a bëri ci ñun. ñun. ñu am diine lañ. ñun. ñu am kilifa yu mag lañ. yoo xam ne doy nañ misaal yoo xam ne doy nañ misaal pour roy. bala ngaa dem di jàng di dégg mool yar mooy kan. jàngal Cheikh Omar Foutiou ba xam mooy kan. jàngal Cheikh Omar Foutiou ba xam mooy kan. jàngal El Hadj Abdoulaye ba xam mooy kan. jàngal Cheikh Ahmad Bamba ba xam mooy kan. jàngal El Hadj Malick Sy ba xam mooy kan. barki démb sëriñ bi la ci umra. ne benn waay daf ko gis di ko xool rek. dal di ñëw nuyu ko. mu ne ko cheikh nga. mu ne ko cheikh nga. mu ne ko waaw moom lañ may wax de. mu ne ma foo bàyyee ko. mu ko foo bàyyee ko. mu ne ko Sénégal. mu ne ko Sénégal. mu ne xam nga Cheikh Ahmad Bamba. mu ne ko xam nga Cheikh Ahmad Bamba. mu ne ko yow foo dëkk. mu ne ko yow foo dëkk. mu ne ma Nappal laa dëkk. mu ne ko Nappal laa dëkk. ñu bëri ci yéen xamut fuy Nappal. ñu bëri ci yéen xamut fuy Nappal. te Sénégal àgg na fa. turi Sénégal àgg na fa. turi Sénégal àgg na fa. boo xam ne dañ koy roy ci boo xam ne dañ koy roy ci yiw. dañ koy roy ci yiw. pourtant du sëñ Bamba rek moo fi jaar. te pourtant du sëñ Bamba rek moo fi jaar. Senghor jaar na fi. Senghor jaar na fi. Lamine Gueye jaar na fi. jaar na fi. ñoom ñëpp jaar nañ fi. ñëpp jaar nañu fi. boo génnee ci frontière bi rek dootoo leen xamati. boo génnee ci frontière bi rek dootoo leen xamati. ci biir réew mi sax dootoo leen xam. ci biir réew mi sax dootoo leen la fi nekkaloon dëgg. waaye ñi la fi nekkaloon dëgg. dañ leen xam ba ci biti réew. dañ xam ba ci biti réew mi. ndax dëgg mooy dëgg. yal nañu yàlla may ñu mën koo sàmm sëriñ bi ne mu ngi gërëm suñ président Macky Sall. ci taxawaayam. gis nañ taxawaayam. rafet na. rafet na. yal na ko yàlla yokk kattan. yal na ko yàlla yokk kattan. yàlla yokk gis-gis. yal na ko yàlla yokk gis-gis. yal na ko yàlla yokku mu dugganteeg peuple am. ko yàlla yokk mu dugganteeg peuple am ñoom. ba xam lan lañ war a def lan la war a def ak ñoom. lan la war a def ak ñoom. nekkee ci rek. waaye boo nekkee ci sa pale rek. say garde wër la. say garde wër la. say ñi lay subooru wër la. ñi lay wër la. doo xam looy defal Sénégal. doo xam looy defal Sénégal. yal na yàlla dimbale suñuy ah, waa réew. yal na yàlla dimbale suñuy waa réew. bi ne mu ngi gërëm préfet. ak euh, commissaire ak commissaire ak commandant Ndorong. ak monsieur le yéen a fi teewal président de la république teewal fi seen bopp. sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal. yal na yàlla teg leen ci kaw yoon. yal na yàlla may leen ngeen bëgg seen liggéey. bëggu leen ko pour seen bopp. waaye da ngeen ko bëgg ngir bëgg seen peuple. ngir tasaare ci seen biir yiw. ngir tasaare ci seen biir mbaax. tasaare ci seen biir. tasaare ci seen biir. ñemee liggéey. ñemee liggéey. utal leen ay moyens yu liggéeyee. leen ay moyens yu liggéeyee. loolu am na. amaguñ ay moyens yu bëree bëri. amaguñ ay moyens yu bëree bëri. waaye am nañ suuf am nañ ndox. waaye am nañ suuf am nañ ndox. nañ jublu ci loolu bu a nañ leen jublu ci loolu bu baax a baax. rawatina nag ci jamono bii nga xam ne. rawatina nag ci jamono bii xam ne. diggante Tunis ak Ukraine. diggante Tunis ak Ukraine. diggante dafay xew. dafay xew. kenn xamut lu muy jur pour àddina bi. jur pour àddina bi. kon ruq bu nekk war naa sukkandiku ci boppam. kon ruq bu nekk. war naa sukkandiku ci boppam fàggu ci teel. balaa loolaa xew. balaa loolaa xew. yàlla bu mu xew sax. yàlla bu mu xew sax. yàlla ay wi yàlla na ay wi jeex tàkk. yàlla na ay wi jeex tàkk. ba ñu nekkaat ci jàmm. ba ñu nekkaat ci jàmm. waaye terewut nag. waaye terewut nag. danañ am njort. danañ am njort. ci ay expérience yi ñu am. ci ay expérience yi ñu am. yooyu itam leneen mën na caa bàyyeekoo. yooyu itam leneen mën na caa bàyyeekoo. yal nañ ci yàlla musal. waaye nañ leen góorgóorlu rek. ñu ngi gërëm ñëpp. sëriñ bi ne ñu ngi gërëm ñëpp. ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp. ñu ngi yàlla ñëpp. rawatina ñi nga xam ne ñoo amee suñu jumaa ji taxawal rawatina ñi nga xam ne ku mel ni imaam. ñoo amee suñ jumaa ji taxawee ñu ak imam Mouhamad Cissé ak ñiy dimbalanteeg ñoom dëgg-dëgg suñ jumaa ji ngir moom ngir ñoom benn jumaa féetewu ko kaw xam ngeen boo demee ci jumaa yi yonent bi sallallahu alayhi wa sa xel mi yépp jumaa ji rekk lay fàttaleku ndax la fay gis ak moom ngay gis ndax la nga fay gis rek moom ngay gis fii tumuranke woofa ndax yónente rek la te bàyyi ne na sara laha sirru madinati nabi ne mbooti yónente ne mbooti yónente bi sallallahu alayhi wa sallam medina yónente sallallahu alayhi wa sallam mbooti merinaam balla na ñëw ci medinaam gii yal nañu ko yàlla wan yal nañ ci àgg ci jàmm ñu àgg ci teraanga. ñu àgg ci am-am. réew mu am. réew mu am. réew mu am xam-xam. te lan mooy xam-xam. te xam lan mooy xam-xam. xam-xam du tiitaru. xam-xam du tiitaru. xam-xam mooy liggéey. xam-xam mooy joxe. yal nañu ko yàlla xamal. jërë ngeen jëf. sëriñ bi nañu ngi feddaliwaat suñu ngërmande ci waa jumaa ji ne rawatina imaam Cheikh Tidiane Aliou Cissé mii ak imam Mouhamad Cissé mii sëriñ bi ne rafetal ngeen jumaa ji lool mu ngi leen di gërëm am ngeen xëy ngërëm yal na yàlla yokku leen yal na yàlla nangu ko itam yal na yàlla yëkkati leen daayiman ni ngeen yëkkatee jumaa ji yal na leen ko yàlla yëkkatee daayiman yaa rabbi ni ngeen dundalee jumaa ji yal na leen ko yàlla dundalee daayiman yaa rabi ci seen bopp ci seeni njaboot seen ngétt lépp ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak yéen di julli yal nañu yàlla defal teraanga yal nañu yàlla defal teraanga yal nañu yàlla defal teraanga salaamaaleykum wa rahmatullah laa ilaha illallah laa ilaha Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd baay yéenay liggéey faydu baay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey faydu baay bi si ji barahama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV